kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suñu aaye bu jëkk ci suuratu fussilat alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yee salaat sant suñu borom jalla wa ala mi ñuy may ñuy dund ci xéewalam te mooy xéewalu chahru ramadan di daje it ci am néegam te lañ fa tax a daje mooy jàng ab téeréem loole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ñu ca mbég yu kawe ñu ngi ñaan suñu borom jalla wa ala yal na yàlla jagleel ñu ko mboolem it ñi nga xam ni ñoo koy topp ak fu ma fu ñu mën a nekk yal nañu yàlla boole ñoom ak ñi nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg ñoom ci site yi xam sa diine yeeg islam tv bi ak seeni technicien ci ñi muy nangul di leen jagleel aafiya fi dunia wal axira kon comme niñ ko waxee rek ñu ngi war a jël suuratu fusilat ci aaye bu njëkk bi bu dee Cheikh Ousmane pare na barakallahu fiikum kon bismillahi rahmaani rahim suñu suñu borom mu ne
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم لي دي أقواتشلا وبووكي الرحمن موي برم يرمان دجا الرحيم كيرم أي جامم كتاب فصلت آياته lii day téere la boo xam ne teqalee nañu ay aayaam quraanan arabiya mu nekk alquran ci lemmiñu arab li qawmi yaalamuun ñeel xeet boo xam ne dañuy xam bashiran wa nazira muy bégalaate ak di xuppaate bégale ci àjjana di xuppaate ngir ñu baja dem sawara fa arada aksaruhum waaye mu daal di dummóoyu walbatiku la ëpp ca ñoom fahum la yasma'un ñoom day nekk ñu di dégg wa qaalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi ñu ne ñun day suñu xol ya daa nekk ci ay kiiraay ca la nga xam ne yaa ngi ñu ca woo jëmi wa fi aazaanina waqrun nekk na ci suñu nopp yi lu diis lu ko fat wa min baynina wa baynaka hijab nekk na suñu diggante ak sa diggante li di benn kiiraay faamal innana amiluun jëfal ñu nit ñi nga toog di jëf qul innama ana basharun mislukum neel man day nekkuma lu dul nit comme yéen yuuxa ilayya suma borom nag moo xamale jëm ci man annama ilahukum ilahun wahid ne seen yàlla bi ngeen war a jaamu day benn yàlla rekk la fastaqimu ilayhi jub leen jëm ci moom wastaxfiruhu ca ngeen jéggulu ko wa waylun lil mushrikin alkaange nag ñeel na bokkaalekat ya allazina laa yu'tuuna zaka ñooñu nga xam ne duñu joxe zakat wa hum bil axirati hum kafirun ca ñoom day alaxira dañ ko weddi inna allazina amanu wa amilu salihat ñi nga xam ne dañoo gëm tey jëf-jëf yi yiw ya nag lahum ajrun ghayru mamnun dana leen ñeel pay goo xam ni kenn du ko tere ay doo dagg ba faw mi ngi noonu mbokk lii mooy suñu ñaareelu saar ci li ñuy tudde alu xamim mooy saar yi suñu borom ubbee xamim donte ni lañ ca waxoon waxoon nañ ko ca xamim mooy yàlla moo xam lan la ci jublu xamal ne daal yow julit soo nee xaamim am nga ñaar fukki tuyaaba mi ngi noonu borom bi fu mu ko waxee nag ab téeréem la cay tagg ca quatre-vingt-dix pour cent ya ab téeréem la cay tagg fii lam ko ubbee mooy téere bi day mi ngi wàcce ca rahman mi ngi wàcce ca rahman loolu day firi ni arrahman ma nga ca kaw arasham ba ca kaw asamaan ya ba tax borom bi ne arrahmanu ala al arshi stawa mi ngi noonu day wane it ni téere bi nga xam ni arrahman ca mooy melokaanu borom bi ci yërmande loolu melokaanam la moo tax mboolem ay jaamam dugg ca rahim nag di jëfam loole di yërmande ji muy jagleel ci ku ko soob ci ay jaamam looloo tax ba mbokk téere bi léppam rahma la moo tax borom bi ne arrahman allama alquran lépp lu mu ñu digle ci téere bi rek rahma la yërmande la xatta la ca intellectuel yaag yéefér yi gën a bañ muy loi yam ca tëral ku njaaloo mas naa sëy rey leen ko ku sàcc dagg leen loxoom ku rey nit rey leen ko amu ci leen loo ci loolu lu dul boo ko settantale xam ne yërmande la ñeel société bi te da ngay gis état bu mu mën a doon am na loi yu muy teg ngir yërëm ngir doon yërëm société bi amul benn gouvernement booy dem lu dul tabax na ay prison ngir ñooñu nga xam ne dañuy def ay jéye ñu jël leen tëj leen foofu bañ a bañ a lor doomu aadama yi suñu borom yàlla it léppam yu raxma la julli gaag koor gaag leneen lu dul loolu lépp raxma la suñu borom bu ne lii dee ab téere la boo xam ne teqalee nañ ay aayaam na am suñu borom moo noon yonente bi alei salatu wasalaam inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'nahu fattabi qur'ana summa inna ali ala- summa inna alayna bayaana téere la boo xam ne yàlla teqalee na ko ba képp koo xam ne nii jóg nga sàkku ji xam-xam day leer ci yow amul benn aay ci téere borom bi lu dul am na lu mu tegtale aaya boobee la ca nekk ka ka xam-xam ko ak ka ka ñàkk xam waaye lépp yàlla leeral na ko waxuñu ak ñun lu dul lañu xam moo tax mu ne alxuraan la juma wàcce ci làmmiñu arab mooy yéen arab yi ni ngeen dégge seen waxin ci noonu laa waxe ak yéen loolu it ñu cay dégge mbokk julit looloo gën a tax ñu toog fii mooy alquran ji yàlla da ko yónnee wolof yaag bambara yaag soosa yaag espagnol yaag ñépp ba pare wàcce ko nag ci làmmiñu arab kon lan mooy pexe mooy fokk raas bu nekk am ñu ca dem jàngi loolu ngir firil leen ko ci seeni lang ngiree ñu mën koo xam amma kii demoon jàng alxuraan ba mokkal ko waaye xamul ci lang lam làmmiñu arab dara mbokk loolu mokkal googu mu ko mbokkal du ko mën a jëriñ lu bëree bëri naam mën na caa am ay ay teeba ca xarf ya waaye nag la taxoon alxuraan wàcc du pour ñu sabab lu ci ay xarf yu ñuy jàng rek kon fokk doomu aadama yi xam lu alquran di firi ci làmmiñu arab waaye ndax doy na déedéet borom bi mu ne li qawmi yaalamun su doon da ngaa nekk arab fiirit ñu indil la alquran ndax tax na nga mën a xam alquran jëfe ko déedéet fokk nga jàng ñu jàngal la alquran jooje looloo tax lii nga xam ne mooy sahabatul kiram dañ ne daanañ jël te yonente bi alayhi salaam fukki aaya mu jàngal ñu ko leeralal ñu àtte ya ca nekk suñ demee ba mokk ko ba maîtriser ko ñëw jël yeneen fukki aaya loolee mbokk mi ngi noonu kii doo Umar ibnul Xattaab keroog ba mu jàngee suratul baqara ba xam ne mboolem aaya ya ca nekk comprendre na ko daa dem rey benn nag muy baqara mu jaamoo ko yàlla jalla wa ala kon fokk mbokk alxuraan ñu jàng ko aaya par aaya ba xam ko imaamul mufassirin moom mooy mujahid mujahid moom moo jëkk dajale lu ñuy tudde ab tafsir nee na toog naag abdullah ibnu abbas mi yonent bi alayhi salaam ne woon mooy fóore xeet bi mi ngi noonu nee na toog naag ibnu abbas ñaari yoon commencé ak moom fatiha baqara ba naasi aaya bu nekk taxawloo naa ko laaj ko ci ay laaj mu tontu ma ay laaj bañ ja bañ def ko ñaari yoon gis ngeen kon fokk yàlla moom ñu jàng téereb yàlla bi téereb yàlla boobu ki ko indi mooy bashirun nazir suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo ñëwoon di bégalaate e yéen gaana yi yéen prisonniers yi yéen pauvres yi yéen lu mu mën a doon coono yi ngeen mën a daj muñu leen àdduna lee mu jeex àjjana moo leen di xaar waaye yéen ñi nga xam ne it da ngeen nekk ci xéewal xéewal yooyu bu mu leen yóbbaale xéewalu àjjana dara melul ne moom jël leen xéewal yi jagleel ko seen boroom waaye di xuppaate it ci moytu leen sawara sawra dara melul ne moom bu la benn mbugal ragal benn mbugal tax nga sàggan ba dem sawara bu la xemmem la benn xéewal tax nga xemmem ba dem sawara dara derul ne moom amma yonent boobu ñëw indi la mi ñu arab indi loo xam ne di leen di bégal di leen xëpp teewul la ëpp ci ñoom dañoo dëdd woon ko gannaaw nanguwu ñoo dégg ay nanguwu ñoo dégg déggug jëruñu déggug jëruñu waaye alxuraan moom ñu ngi koy dégg yonente maa nga dem ca kaaba ga di ko jàng waaye nanguwu ñoo dégg déggoog jëriñu laa yasmaun dañ daan ñëw ci yonente bi alei salaam na ko muhammad bul son gis nga ñun suñu xol yi daaw muuru munoo wax a wax a wax ba lii ngay wax nga dugal ko suñu bopp yi munta nekk da ngay sonn rek gannaaw ba gis nga lii ñuy woo jëmi nii ca mooy yàlla kenn la alaxira am na yow yonente yàlla nga munoo fexe ba ñu dégg ko suñu nopp yi am na lu diis lu ko saañ booy waxit yaa ngi mel ne kuy wax ak ngelaw li duñ la dégg mukk gannaaw ba it suñu diggante kiiraay mi ngi ci gisuñu la gisuñu say jëf yaa ngi dégg ñett yooyu la doomu aadama ji dégg inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula doomu aadama da ngay xalaat wala nga dégg jëfe wala nga gis ràññee amma ñett yépp bu dee tëj nañ ko suñu borom yàlla mu ne loolu moom mooy jeex na ñu ne ko nag fa amal di yaa ngi jëf ngir sun diine ji nga fay ko inna na amiloon ñu nit ñoo ngi jëf ca mooy lu ñu man dañ ko def ba fekk la yàq ñi nga àndal te mbokk combat boobu combat la bu dul jeex bi ila yumi diin alazina kafaru wa saddu an sabilillah ña nga xam ne dañoo weddi ba pare di fekk yoonu yàlla ba ila yumi diin du jeex yow julit xamal loolu xamal ni génération bu nekk ak forme xeex ba nga xamee ne moom lañ koy xeexee tey jii mbokk bokk na xeex bi gën a rëy mooy sur le plan culturel intellectuel te la ñu gën a xeex ndaw yu julit ñi tey ci portable yi ci réseau yi ci ay xabaar yu dul jeex yu amul bopp amul genn ci ay film ci ay théâtre ci ay information yoo xam ne quatre-vingt-dix pour cent ba si non fondé itteel julit ñi xeex bi gën a rëy tey mi ngi nekk foofu galloo yow ndawal julit nga julit nga xam ko donte ni ni an yi ci gannaaw xeex bi mu gën a nekk ci xeexu matériel militaire suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne yow yonent bi alayhi salaam ne leen man de nit laa rek comme yéen waaye nag dañ maa wax yu wax yu mooy nga dañ maa xamal lu ngeen lu ngeen xamul yéen da ngeen noonu tey mi ngi mel ni rek téléphone ki nekk Amérique téléphone na la kooku daanaka wax yu na la ndax ñi nga nekkal xamuñu li mu wax yow xam nga ko nit laa comme yéen du ma malaaka ba ngeen nan naa def nangam ki nangam du ma jinne waaye nit laa comme yéen yàlla sant ma ma ànd ak yéen jaamu yàlla la yàlla waxu ci man nag la ci gën a màgg mooy ngeen xam ne yàlla kenn la inna innama ilahukum ilahun wahid yàlla kenn dong la te loolu mbokk kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne moom dong la ñu war a yaakaar ci moom dong la ñu war a sukkandiku ci moom dong la ñu war a ragal ne buñ ko moyul musiba am ndax mbokk li ëpp ci nit ñi tey xam nañ loolu déet ah boo ko moyee musiba dal la li ëpp ci nit ñi ne xam nañ loolu déedéet mbokk li ëpp ci nit ñi ñi ngi naan laa ilaha illallah waaye comprendre lu ñu laa ilaha illallah ndax tànk yaa ngi yaakaar keneen ku dul yàlla xamoo luy laa ilaha illallah tànk yaa ngi sukkandiku ci keneen ku dul yàlla xamoo luy laa ilaha illallah tànk yaa ngi woo keneen ku dul yàlla xamoo luy laa ilaha illallah ndax laa ilaha illallah muy loolu lépp kenn ko yooyu muy allah ilahukum ilahun wahid ngal la waaye fastaqimu ilayhi jubleen dox jëm ci moom ca mbokk ñun ñëpp ñi ngi jëm ci yàlla jalla wa ala dama aadama fa nga juddoo yaa ngi nag dox jëm ci yàlla bés bu nekk mi ngi lay gën a jegeel sa borom waxtu wu nekk noyyi gu ne mi ngi lay gën a jegeel sa borom kon fastaqimoo tege leen ci yoon wi jëm ci moom lan mooy al istiqaama al istiqaama mbokk mooy nga wéetal yàlla ci jaam gi doxale say mbir ci sunna ba mu tegoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu law istaqaamu ala tariqa te mooy yoon bi yonent bi alayhi salaam jaaroon loolu sax leen ci jëm ci seen borom loolu la ñuy ñaan yàlla dix-sept fois par jour ihdina sirat al mustaqim yàlla yàlla nag ñu saxal ba rey ñu ci sirat al mustaqim ndax loolu rek mooy al istiqaama waaw sax ci loolu nag ndax day firi njuumte du am aha kay déedéet yàlla daa bind doomu aadama muy doomu aadama amul benn doomu aadama bu dul juum di def bakkaar amut yàlla mosu koo bind mosul bind doomu aadama bu dul juum bal yonente bi alayhi salaam nee na sax bu doon yéen du ngeen def bakkaar yàlla jëli leen fi indi ñuy def bakkaar ndax yàlla mooy alxafuur mooy jéggal alxafaar mooy attawaab kon fokk bakkaar am waa léegi nag luy pexe kon suñu borom mu ne tege leen ci yoon bi ngeen jub ca wastaxfiruhu ngeen jéggulu ko nag bakkaar yi mbokk istixfaar mooy lan mooy ñaan yàlla suturaal la gannaaw ba ñaan yàlla jéggal la na am ñaan yàlla suturaal la dañu gis koo xamee ni nii mën nañ dëkk kenn ci doomu aadama yi xamul bakkaar xamul bakkaaram kenn ci doomu aadama xamul ko bakkaaram waaye nag moom ci boppam xam ne ne ay njuumte mënu caa mucc kon da ngay ñaan yàlla suturaal la muy astaghfirullah yàlla yàlla nag ma suturaal waaye yàlla yàlla nag ma jéggal wastaghfiruhu te ngeen jéggulu seen borom borom bi nag ne alkaange day ñeel na ña nga xam ne ay dañuy bokkaale alkaange ñeel na ñi nga xam ne dañuy bokkaale am na ñu naan waylun xurl la ci biir sawara yàlla na yàlla musal ñu ci waaye àlla kulli xaal mooy alkaange rek alkaange ñeel na ñuy bokkaale ca mbokk mooy musiba bi gën a rëy bu doomu aadama def ci kaw suuf ay waay njaaloo ko bon rey nite ko bon lekk riba ko bon toroxal jirima ko bon waaye loolu lépp lépp mbokk julit lay alkaange alkaange dëgg-dëgg mooy bokkaale ak sa borom jëll waala borom bi nee na mooy ñi nga xam ne duñ joxe zakat loolee am na ñaari firin seen alal duñ ca jël joxe aqu yàlla donte ne firin ba gën a jege mooy duñu sellal seen bakkan borom bi mu ne wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha texe na ki sellal bakkanam la ñu doon ci bàyyi sam di wax naan yàlla jàll wa ala aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha yàlla yàlla na nga may ragal yàlla sellal sama bakkan yaa gën ci ku koy sellal ay kon ñoom duñu sellal seen bakkan ci génn ci shirk ci génn ci rëy ci génn ci musiba ya ba pare ñoom alaxira encore dañ koy witti kon def nañu musiba yoo xam ne yii yëpp alkaanga la leen di jural bokkaale nañu sellaluñ seen bakkan weddi nañu alaxira amma nag suñu borom yàlla wëlbatiku ca ña tege ca yoon wa mooy ñan ñi nga xam ne ñoom gëm nañu cay jëf lu baax ñii ñoo am al istiqaama borom bi nee na dana leen ñeen pay boo xam ne du dagg ba faw ba ko adduna mboolem bànneex bi fi neex bi fi nekk moom mooy la nga xam ne bis day ñëw rek mu dagg mooy rey bal manuun amma nag alaxira xéewal ya fa nekk du dagg ba faww mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قل أئ- قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni qul a innakum la takfurun moo ndax yéenay nekk di weddi billazi xalaqa al arda fi yawmayni ci ki nga xam ne moo bind suuf ci ñaari bis wa taj'aluuna lahu andaada ngeen di ko wutal la nga xam ne mooy ñu ngeen koy dendaleel ay nawle zalika rabbul alamin kooku mooy borom mbindaaf ba mbindaafan yépp mi ngi noonu wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha moo def ca suuf soosee ay montagne ca kawam wa baraka fiha barkeel suuf soosee wa qaddara fiha aqwaataha daal di cay nattale la nga xam ne moom mooy ab dundam fii arbaati ayaamin ci ñeenti fan yoo xam ni sawaan lissaa'ilin yemoo na ñeel ñay laaj ay ay kawtéef summa stawa ila sama gannaaw ba mu jublu ca asamaan wa hiya duxaan fekk mi ngi nekkoon saxar fa qaala laha wa lil ardi itiya tawan aw karha mu wax ko moog suuf dikkal leen ma ci coobarewu wala mu naqari leen qaalata atayna ta'iin ñu ne ay yàlla dikkal nañ la kay ci ak coobarewu mi ngi noonu fa qadaahunna sab'a samawat mu daal di leen di atte teqale leen ci juróom-ñaari asamaan fi yawmayni ci ñaari fan wa awha fi kulli samain amraha daal di wax yu xamal ci bépp asamaan la nga xam ne mooy ay mbiram yam bëgg ñu doxal ko fa wa zayyanna samaa dunya bi masabih nii la ñu taarale asamaan bi gën a jege te la nga xam ne mooy ay lamp yu koy leeral wa xifza def ko it muy loo xam ne ak wattu la mooy ñel cheytaane ya zalika taqdiru al aziz al alim lii day mooy nattub ka not lépp ci kàttanam ka xam lépp nu ñu koy defee mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii ci loo xam ne fa jëm ci wàllu wàllu science donte ne dañ ñëy alxuraan bay xool li ci nekk ci ay données scientifiques yu lay wax ci jaww ji moo ëpp lay woote ci ibaadaat di wane ni nii la ñu war a julleeg nii la ñu war a woore ndax xam nañ sunu borom jalla wa ala julli gi baax na koor gi baax na waaye la ko gën a itteel muy doomu aadama yi am tawxid xam ne yàlla rek ay yàlla màggal ko mi ngi noonu loolee da ngay gis bu saxee rek li ci des lépp day yomb amma échec bu amee foofu rek li ci des yépp échec da cay am borom bi subhanahu wa taala mu ne ndax yéen a weddi ci ki bind suuf ci ñaari fan moo ko bind ci ñaari fan ñaari fan yooyu ñaata la durée yàlla moo ko xam suñu borom nee na a inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun benn bis fi yàlla mi ngi mel ni mille ans ci li ngeen di wàññee mi ngi noonu wax ne it taaruju almalaikatu wa ruuxu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu alfa sana mooy mal ah na xamsina alfa sana muy cinquante mille ans loolu kon ñaari bis yooyu wax nañu ko wax nañu alfa sana wax nañu xamsina alfa sana ci téeréem bu tedd bi ca taxawaayu bis penc day juree xamsina alfa sana léegi nag bis yi ñaata bis la ay période la yoo xam ne allahu aalam ci temps ba naka la demee ndax xam nañ ni pour natt bis mooy ci ñun jant bi bu fenkee ba fenkat ñu naan bisa ngoog ila axiri waaw bu fenkee ba fenkat la wax mooy mooy mooy bouclé mooy un jour dem na mi nga noonu kon loolu mooy suñu borom li mu wax mu ne def na ko ci ñaari bis mu ne léegi yow nan ngeen di utale kooku ay ndend mu ne lii nag mooy nattoob borom asam borom mbindaa fan yépp muy rabbul alamin borom boobu la wëlbati ko nee na def na ci ay montagne barkeel ko génn ci lépp loo xam ne nii lu ñuy jëriñoo la def ko loolu ci ñeenti fan ñeel koo xam ne day laaj suñu borom yàlla mi ngi ñuy jàngal planifier moom lu ko neex lay def danaan amal mu am waaye mu ñuy war ne yow doomu aadama it lépp looy def utal ko rek ay étape étape étape ba baa muy sotti ci jàmm waaye wala fi dañ naan ndar xëyul sotti gis ngeen su ko defee kon loolu moo ko def mooy ci barkeel suuf mbokk suuf ñaata espèce moo ci nekk ci loo xam ne njëriñu dama aadama la te borom bi ñu ne lépp yéen a tax ma def ko xalaqa lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu lépp yéen a tax nga commencé ci gàncax gi ñaata commencé ci jur gi ñaata rabi àll yi ñaata picc yi naaw ñaata nga dugg ci biir suuf lan moo fa nekk or manganèse lan moo fa nekk ci fer inox yeneen ak yeneen nga dem ci liquide ya loo xam ne nii ci mujjug dund bi doomu aadama yi demee bay xalaat naan li nekk ci kaw suuf doyatul waa suuf suñ borom yàlla génneel ñu ay réserve yoo xam ne suñu maam mosuñu ko xalaat muy le pétrole nga xam ne tey jii daal di ko quatre-vingt pour cent liy dox ci àdduna bi base mooy pétrole mi ngi noonu le gaz mi ngi noonu lépp loo xam ne day jëriñ doomu aadama suñu borom mën a moo ko def ci biir suuf nattale ko ci ah ñeel képp koy laaj gannaaw ba nag mu jublu ci asamaan yi bu dee istuwa ila mooy daa jublu ca amma bu dee ala mooy dafa dem ca kawam mu jublu ci asamaan fekk usman asamaan mi ngi nekk la nga xam ne mooy saxar te loolu yàlla wan na ko scientifique yi mbokk asamaan ak suuf suñu borom mu ne afalam yara allazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fa fatahnahuma ndax yéefir gis ñoo ne asamaan ak suuf yëpp benn bloc la woon man yàlla maa ko tas te tey jii bi ñu demee ba lu yàggul dara scientifique yi ci seeni gëstoog seeni xool ca la ñu génnee li ñuy tuddee le big bang le big bang mooy asamaan ak suuf yépp day benn bloc la woon dafa am benn instant mu tas bi mu tasee ca la am lu ñuy tuddee nag benn jet boo xam ne moo dem commencé di yaatu mooy l'extension des cieux ca loolu suñu borom yàlla wax na ko ci asamaan boobu mooy wa samaa xalaqnaaha bi aydin mu ko waxe banaynaha bi aydin wa inna la muusiun asamaan ñoo ko tabax ci kàttan te ñoo ko yàttal ñu lañ tuddee l'extension des cieux léegi nag suñu borom mën a ca laa teqale génne asamaan yi def ko juróom-ñaari asamaan asamaan bu nekk ma tasaare la ca nekk masalan asamaanu benneel mu def ci des milliards de bidiw gannaaw ba am ay planètes yoo xam ne nii def na ko ci diggante bi ca la jëlit planète bii ñuy wax suuf ca la jël def ci doomu aadama daa di ciy def kawtéefam yoo xam ne kenn mënu koo lim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenn mënu koo lim borom boobu subhanahu wa taala nee na loolu mu nekk duxaan loolu mooy wane li scientifique naan le big bang mooy lépp dafa nekkoon benn fumée soo xoolee gaa yu sànq yooyu di le rastafarisme mooy ñoom Bob Marley dof yu mel ne moom nga xam ni ñoom dañ ne dañuy dellu cosaan moo tax bu ñu dajee yàmbaa ji li ñuy jël dañuy tuuxa tuuxa tuuxa tox ba kenn du gis na morom ñu ne lii mooy cosaanu asamaan ak suuf mi ngi noonu ala kulli xaal loolu mbokk la suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax ñu nee na gannaaw ba nag la wax ak asamaan ey asamaan ak suuf dikkal leen ma dox samay ndigal ci seen coobare wala seen ñàkk coobare mbokk loolu yi la ñuy jëkk a dégg mooy dikkati asamaan bii daa am yëg-yëg suñu borom def ci yëg-yëg nim la binde yow def la yëg-yëg ngay dégg di xam di jëf di mën a jëf mën a bañ loolu la yàlla defal asamaan defal ko suuf ak lépp lu ci nekk ne leen nag topp leen su may ndigal mu neex leen wala mu bañ leen a neex asamaan ak suuf nag ah suñu borom ñun kay ñoo ngi def say ndigal ci mu neex ñu ñu ngi def say ndigal ci mu neex ñu dara naqariwuñ ci loolu it mbokk julit suuf si mi ngi dox ci ndigalu yàlla ñun ñi ngi ci kawam bokk na ci mbiram mi ngi enregistré lépp loo def ci kawam gis ngeen iza zulzilat al ardu zilzalaha wa akhrajat al ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha keroog suuf dana nettali ay xabaaram yonente bi alayhi salaam ne mooy lépp lu ab jaam masa def ci kawam suuf dana taxaw nettali ko bisu penc bu taxawee mooy di mii day heure sangam place sangam lii la fa def heure sangam place sangam lii la fa def heure sangam place sangam lii la fa def mi ngi noonu waaw loolu Mohamed Sarr la xam Mohamed Sarr la loolu kon mbokk julit mooy la nga xamee ni nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci wàllu googe mu wax gannaaw loolu borom bi subhanahu wa taala ne teqali na asamaan ak suuf ci juróom-ñaari teqale ci juróom-ñaari asamaan loolu lépp mu def ko ci ñaari fan ñaari fan yooyee mooy lañu waxoon ca ñeenti fan yu jëkk ya rek wax yu ci mboolem asamaan yi la nga xam ne mooy ndigal yañ ca def mbokk ñun ñu ngi ni waa suuf yàlla yónni nañu yonent sant ñu lim ñu sant ci ay julleeki ko war a ki aj waa asamaan ay malaaka fa nekk mala asamaan bu nekk yàlla sant na leen lu ñuy war a def ñee ña ngay rukkoo ñee ña ngay sujud ñee ña ngay sabbaal ñee ña ngay def loo xam ne ñun xamuñu ko waaye bépp asamaan borom bi subhanahu wa taala nee na xam na jox na leen digal ca la nga xam ne nii moom lañ ca war a def borom boobu nag subhanahu wa taala ne moo taaral asamaanu benneel bi ca la nga xamee ne nii moom mooy ci ay biddiw comme ni ngeen koy gisee donte ne gon ak Ndakaaru dana jafe mu xam ko waaye it moo ko wattu ba benn seytaane du fa mën a jege bay xam wahyu gi yàlla di wahyu jëm ci ay yonentam mu ne lii lépp nag kenn doo nga ko def mooy al aziz muy suñu borom al alim ki xam lépp loo xam ne xam na ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane naam
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni fa in a'radu su dee dañoo dummoo yu day fa qul anzartukum neel maa ngi leen di xuppi sa'iqatan misla sa'iqati aadin wa thamud la nga xamee ni nii mooy yuuxug alkaange gu mel ni ga daloon ca la nga xamee ni nii moom mooy waa aad ak wa thamud alkaange ga daloon ca ñoom is jaatuhum rusulu min bayni yadayhi min bayni aydihim ba leen yonent yi dikkalee ci seen kanam wa min xalfihim ak seen gannaaw alla taabudu illa allah ne ngal la waay bu leen jaamu ku dul yàlla yi kese qaalu law shaa rabbuna la anzala malaika ñu ne bu neexoon yàlla day day suñu boroom day wàcce malaaka fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun day lañ leen yónni jëme ñun weddi nañ ko fa amma aad bu dee waa aad fastakbaru fi l ard ñoom day dañoo réeril woon ci kaw suuf bi ghayril haqq ci loo xam ne teguñu ko ci dëgg wa qaalu man ashadd minna quwwa ñu ne waaw moo ñun kan mooy ki gën a tar ci ñun kattan awalam yaraw anna allaha alladi xalaqahum ma ndax ñoom xamuñu ne yàlla mi nga xam ne moo leen bind day huwa ashaddu minhum quwwa moo leen gën a tar kattan wa kaanu bi ayatina yajhadun te ñoom day nekkoon nañ suñu aaya ya di ko weddi mi ngi noonu fa arsalna alayhim rihan sarsara ñu daal di yónni ci ñoom ngelaw boo xamee ne nii ma nga ànd ak riir mu tar ñu sarsara fi ayaamin naxisaat ci ay bis yoo xam ne bis yu ñu gaafal la linuziqahum azab alxizyi fi alxayati dunya ngir ñu masal leen mbugalum toroxtaanga ci dunduk àdduna wala azabu alaxirati axza doonte ne mbugalum alaxira moo gën a nekk moom toroxtaange wa hum la yunsaruun te ñoom day kenn du leen dimbali mi ngi noonu bokk gis nañu suñu boroom heure bu indee ay waaraate heure bu indee ay tegtal balaa yàgg rek mu indi échantillon ci ñi nga xam ni dañ fee jaaroon ca jaaruñu fi neex yàlla moo wane fan la jaar ak ñoom wala fi dañ naan ku la jëkk a reer day jàngal na la aw réerin te mooy képp ku am xel xam ne kat kii day li muy wax ñaka jiitu woon bañ ko waxee ñu weddi leen dañ leen a alak yow doo bokk mukk ci ñi ko weddi ñooñu mu jox ci misaal ñoo xam ne jàngoon nañ ko ci gannaaw muy waa aad ñoom ñoo ñëw gannaaw xawmu nuux yàlla subhanahu wa taala génne leen ñu nekk mbindaafan yoo xam ne yàlla musul bind ñu gën a rëy comme ni mu binde waa aat ak doole jam leen joxoon loolee ñu bewee ko noggatu ña nga xam ne dañoo bokkoon ak ñoom jamono kuñ ci dajeel dóor nangu sa alal mi ngi noonu baram boobu subhanahu wa taala ne kon dañoo rëy rëylu woon ci kaw suuf te teguñu ko ci dëgg bu ko defee bu leen yeneen ciy daan menacé ñu naan waaw ñun kan moo ñu ëpp kattan ba mën a nga naan du ñuy menacé suñu borom ne waaw xanaa xamuñu ne yàlla moo leen ëpp kattan yàlla mi leen bind moo leen ëpp kattan ca teewul ñu weddi ay aayaam te loolu it mbokk tey jii am na lu ñuy tuddee ci kaw suuf les grandes puissances grandes puissances yi ñu ngi noonu xam nañ leen ka ca gën a puissant ca ñoom mooy États-Unis waaye mbokk da ngay xool tey yàlla mi nga xam ne nee na xanaa xamuñu ne yàlla mi leen bind moo leen ëpp kattan xoolal mbokk jaamam bii mu yónni ñuy corona ana lan la def États-Unis lan la def ci grande puissance yooyee lan la ci continuer def ba léegi loolu muy wane ne anna al quwwata lillahi jamia kattan yàlla rek a ko yor puissance amul loolu ñoo ko dogal suñu bopp rek ne c'est des puissances déedéet mbokk jullit puissance amul puissance yi loxo yàlla la nekk looloo tax ba corona baa ngi luñ ci man daw leen pikiru leen tëju leen kaza wa kaza léeg-léeg suñu borom ngelaw lay indi ñi ngi koy seen mu ñëw ci océan bi xam ne kat am na ngelaw léeg-léeg ngelaw bu ne am na lu ñu ko tuddee seen tur yooyee mënuñu ci dara lu dul daw leen làqu leen déplacé nit ñi teewul ngelaw bu ñëwee dana rey deux mille trois mille avec des milliards de dégâts luñ ci man dara suñu borom moo koy utal fu mu commencé utal ko fu mu yem jeex na kon yàlla mi bind rek mu am kattan borom boobu subhanahu wa taala ne moo tax ngiree xamal leen ne duñu dara tey jii bu ñuy xool kaw suuf li fi gën a néew kattan mooy ngelaw mooy leer yaakaar na yéen xale yi dañ naan un litre d'air égal zéro virgule trois gramme gis ngeen mais ngelaw loolu nga xam ne moom ni mu néewee kattan nga koy jël di noyyi dugal say poumon di génne moom la yàlla kattanal mu fekki waa aat gis ngeen ngelaw la yàlla kattanal mu fekki waa aat ñu doon wax naan ku ñu ëpp kattan yàlla indiwul ay ñay yàlla indiwul ay gaynde waaye yàlla ngelaw la leen yónni ngelaw boobee yokk puissance am mu nekk sarsaraan ñëw lépp lu mu fekk mu nit ku fekk mu taxaw dala yëkkati ba ci kaw mu dóor la sa bopp tojatoo ñu mel ni ay dattu tàndarma yu daanu comme na ko yàlla waxe ñu ngi noonu ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karrami seen dëkkuwaay yépp mu maase la ko loolee mbokk day wane ni suñu borom yàlla rek mooy borom kàttan borom boobu nag subhanahu wa taala nee na toroxal na leen ci àdduna saxal ci ñoom li ñuy tuddee ayaamu naxisaat mooy bis yoo xam ne gaafam nga du jeex ba faw mbëgalu àdduna la bu jokkoo ak mbëgalu àllaaxira soo demee suñu maam yi nag ñu ne mooy àllarbay kare ca la ñu alagoon waa waa aat donc àllarba ji jëkk ci weeru safar bu nekk gaaf la mais loolu suñuy waxi maam rek la waaye du alquran du sunna borom boobu subhanahu wa taala nag ni lañ leen di mbugale àllaaxira moo gën a nekk torox tànge te bu boobaa kenn du leen dimbali borom bi bàyyi loolu daa di woo ña nga xam ne ñooy waa samuud daa di ah foofu la ñëwoon bismillah cheikh ousmane kon waa samuud وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون barakallahu fiikum kon mu ni wa amma samuudu bu dee waa samuud fa hadaynaahum ñoom de jubaloon nañu leen fastahabu lama alal huda ñu daa di génnele ak gumba gumbalu ca yoon wu jub wa fa axasathum saaiqatu alazabi alhuun noonu la leen jàppe la nga xame ne nii mooy yuuxub mbugalub toroxtaange bi ma kaanu yaksiboon ca la nga xame ne nii mooy lañ nekkoon di ko fàggu wa najjayna allazina amanu waa ñu noonu lañ musale ña gëmoon ca ñoom wa kaanu yattaquun ca nekkoon di ragal yàlla wa yawma yuxsharu a'daa'u llahi ila annar fa hum yuzaun bis ba ñuy dajale noonu yàlla yi jëme ca sawara fekk dañoo doon ñu ñuy tegale ñu ngi noonu rangale leen hatta ida ma jaa'uha ba baa ñu dikkal sawara soose shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum noonu lay seydee ci ñoom seen dégg ga ak seen gis ya wa juluduhum ak seen derya bi ma kaanu yaamaluun ca lañ nekkoon di ko def mbokk gannaaw waa aat yàlla dafa génne seeni doom ñooñee ña ca muccoon ñépp dañoo gëmoon yàlla ñu dem ba yàgg bokkaali amaat ci kaw suuf suñ borom yàlla yónni ci ñoom ab yonent mi ngi tuddoon yonent yàlla saalix mu ñëw indi leen lay yu leer nañ ñu lànk topp la nga xam ne nii moom mooy seeni bànneex nanguwuñu gis yoonu yàlla wa borom bi subhanahu wa taala yónnee leen jibril alayhi salaam mu yuuxu leen yuux googee dagg seeni xol ku nekk fa nga nekk fa nga ne groupe toog mu ne nag toroxtaangeogu dara yeyowu dara warulu ko lu dul lañ nekkoon di ko faggu te loolu it suñu borom mu ne lépp lu leen dal ci musiba fa bi ma kasabat ay diikum yàlla du tooñ kenn day fayaate rek wala mu jéggal la bu dee jullit yee da leen di jéggal bu dee saay saay see da leen di fay waaye ku nekk la nga jot yow yaa ko fagg borom bi ñu ne keroog lañ musal mboolem ñi gëmoon yàlla ca doonoon ñoo xam ne dañuy ragal seen borom jalla wa ala ca ñaar yooyu mooy tax a mucc ragal yàlla mi ngi noonu gëm ko ca jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem borom boobu nag gannaaw ba la ñuy nettali benn étape boo xam ne mi ngi ñëw suñu kanam yowmal qiyaama suñu borom mu ni dana dajale ay noom na noon ña mooy ñan bokkaalekat yàgg yéeféer ya ñu jëme leen ca sawara def leen en rang noonu lañ ko jàngoon suratu zumar muy zumara ñu def leen en rang ñu gën a bon jiitu ña ca topp topp ca ña ca topp topp ca ba ba ka mujj yeyoo sawara ñoom ñëpp ñu nekk en rang bu ñëwee ba buntu sawara su ko defee ñu indi seeni lay ay yàlla ñun bokkaale wu ñu woon ay yàlla weddi wu ñu woon suñu borom yàlla kaste seen gémmiñ ya ci noonu la ñuy gis mu ñëw di seede seen nopp ya ay yàlla jaam bii nga ma boole loon day waaroon nañ ko déggoon naa waaraate moo ko nangul woon a topp ba dee ñëw sa jaam bii day maa ko doon gisal la nga xam ne yoonu njub ak tegtal ya jëfewu ko woon mboolem der bi commencé di wax te der moo ëmb lépp ñu ngi noonu doomu aadama léppam der la ñoom it di seede lépp loo xamee ne nii jaam bi jëfan na ko te loolee mbokk comme ni ñu leen ko waxee doon na yéem lool suñuy maam amma ñun ñu tombeek matériel yiy wax rajo télévision portable loxo buy wax wala bët buy wax jom molatuñu mi ngi noonu loolu may nar a am yawmal qiyaama Cheikh Ousmane yeggaleel ñu ko rek
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المحتمين jazakum allahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ne wa qaalu li juludihim daañu wax seen der ya li ma shahidtum alayna lu tax ngeen di seede contre ñun qaalu antaqana allah ñu ne ñun kat yàlla ñu waxloo alladi antaqa kulla cheyin yàlla mi waxloo lum mën a doon wa huwa xalaqakum awala marra te moo leen bindoon ca njëlbeen gu njëkk ga wa ilayhi turjaun te ci yàlla ngeen di dellu mi ngi noonu nag wa ma kuntum tastatiruun munu leen a wala nekk di làqu an yashhada alaykum sam'ukum ba du seede ci yéen seen dégg gi wala absaarukum wala seen gis yi wala juludukum wala seen der yi walakin zanantum waaye da ngeen jortoon anna allaha la ya'lamu ne yàlla day du xam kathiran mimma ta'malun lu bari ci la nga xam ne yéen a ngi koy jëf wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum lii day mooy jort bi ngeen jortoon ci seen boroom ardaakum loolu moo leen alak fas fa asbahtum min alxaasirin ngeen xëy bokk ci ñi perte fa in yasbiru buñ muñee fa naaru maswan lahum sawaray seen wàccuwaay wa in yastatibu bu ñu joxee ay ngant di jéggulu fa ma hum min almu'tabin du ñu may mukk yoon ngir ñuy mën a joxe ngant ak jéggulu mi ngi noonu mbokk yowm alqiyama kon borom bi nee na yéeféer bu ne dana wax ak ab deram lu tax ngeen di seede suñu kaw te ñu yéene ànd dem sawara suñu borom nee na der yi ne leen ah seede gi kat dañ koo munta bañ a wax xam nañ ne sawara lañ jëm waaye mënuñoo bañ a wax yàlla mi wax loo lépp yàlla moo ñu wax loo te waaye nga la waay yow julit xamal ne yàlla la wax loo de te ji ñaata ay doomu aadama soo leen gisee seen jëmm dara manqué wu ci gémmiñ gaa ngi lammiñ baa ngi ci mënuñoo wax mi nga noonu barki démb rek la fi am station tëx yi daje fii ci jàkka ji ay sànn li dégg ñoo xam ne sax mënuñu ko wax et pourtant am na ci ñuy jàng ba am ay diplôme ay doctorat sax am na ñu ko ci am mais day sànn mënuñu wax gis ngeen am na ñoo xam ne nii ñàkk wax ga day ànd ak ñàkk dégg yow nag sa borom yàlla may la yaa ngi dégg yaa ngi wax nga noonu ci en général ku dul dégg du wax moom mi ngi noonu loolee kon suñu borom moo wax loolu ko neex antaqa kulla shay moo wax loolu lépp lu mën a doon te moo leen bindoon ca njëlbeen te ci moom ngeen di dellu loolu it ku nekk ci war ko bàyyi xel mbokk suñu cosaan ci yàlla la loolu rek war na jar ñu jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara ci yàlla la ñuy dellu ëllëg mooy borom àjjana ak sawara même bu doon binduñu même bu doon wërsëg lañu waaye wóor nañu ne bu ñu ko fekkee dala ñu dugal àjjana wala sawara loolu rek war naa tax ñu jaamu ko ñaar yi yépp war naa tax ñu jaamu yàlla xalaqakum wa ilayhi turjaun borom boobu nag subhanahu wa taala ne mi ngi noonu nag amu leen fu ngeen mën a dem làqu ji te seen nopp yi seen bët yi ak seen der yi ànduñu ak yéen gars yi mën ngaa làqu sa xarit làqu sa soxna làqu sa doom làqu sa garde corps waaye ndax mën ngaa làqu bët ak nopp ak der déedéet amu fu ngeen mën a dem lu dul ñu ngi ànd ak yéen doonte ne yéefiri jàppoon nañ ne yàlla moom xamul lu bari ci lañ doon def mbokk mooy ña fàtte yàlla nasullaha fa nasiyahum fàtte nañ ne yàlla xam nañ li ñuy def amma yow julit xamal ni lépp looy wax wala lépp looy jëf xamal ne sama borom xam na ko ci mi ngi may dégg mi ngi may gis borom bi nag nee na njort boobu moo leen alak ba tax tey ngeen bokk ci ñu perte léegi nag bisub tey bii moom bu leen neexee ngeen muñ bañ a wax dara sawara ngeen jëm bu leen neexee nekk lay jabatu lu ngeen mën a def it amul benn lay boo xam ne dañ leen ko nangul kon mbokk lay waa ngi fii mooy bala ñoo dem ci yàlla ñu tuub toroxlu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu teg ñu ci yoonu njub lool rek moom mooy jëriñ yal na yàlla barkeelal ñu suñuy dégg barkeelal ñu suñuy gis barkeelal ñu suñu der boole ñu ci ñami seedeel ne àjjana lañ jëm wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax am na ay azkar yi ñuy wax baada salaa ndax dañ koy wax ci gannaaw naafile yi loolee gisuñu ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu ñuy gis ci moom su masaan julli wéetir ba pare daana wax subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruux loolee daana ko wax ñetti yoon waaye daal ci gàttal mooy askar baada salaa comme niñ ko fi waxee woon démb mi ngi topp salawatul xams amma nag foo naafila def askar baada salaa loolee da ngay gis ne nekkul woon lu ñu jànge ci sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam waaw dama am sama yére bu amoon sobe ma am soxna bu ma ko jox léegi nag bu ma ko delloo ma julli ci ba pare mu ne ma yére yi de ndox ak saabu laa ko fóote fóotewu ko ak ndoxu kese ndax julli yam ca julli baax na almuhim li ñuy jëkk a wax mooy même bu doon yére bi dafa amoon sobe te moom xamul woon ne yére bi am na sobe fàtte na ko julli yam ci julli baax na mu des nag yére bi nga xam ne daa am sobe ñu jël ko dogal ko ci ndox ak saabu fóot ko ba mu set ndax sobe bi dañ na am demul dañul naam li ñuy jàng ci suñ téere yi dañ naan sobe ndox bu set kese moo koy dindi waaye nag mbokk bokk na it ci yeneen i mazahib yoo xam ne la ñuy wax xel nangu na ko mooy sobe bu teqali ko yére rek yére ba làpp na ak lu mën a teqali ak yére ba ak moom ku mel ni Cheikh Ousaymin rahimahullah daana wax ne bu doon amoo lu dul bidon essence sa yére bi am sobe nga jël essence bi sax raxas ko ba mu set yére bi làpp na kon yére bi saabu lañ ko raxasee luñ ko mën a raxasee maadaama daal sobe bee ci woon xam nga ne moom raxas nga ko bu sobe ba dañ ne yére ba bee làpp na pour ñu jullee ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal kon mbokk ñu doyloo loolu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain